suñ paree ñoom dana wax kàddu yi sama nijaay di leen jaay suñ paree suñ moom yow lañu jox kàddu bi nga wax suñ daam su amee lu ñuy wax wax ko da ngeen julli ñu ñaan leen def dem tëdd suñ dee li nga wax li ñuy limité daal mooy ajjuma waaw ku neex nag bu neex nga wax ko ba xëy waaye fii moom bu suñ daam waxee bu ne ba tey ba clôturé bu ma kenn naan damay wax fii yooyu nag moom kenn du wax kenn amul kàddu ma nga leen amul kàddu suñ leen ñi nga xam ne moom bokk nekk amul kàddu ñeent lii daal lañ wax jërëjëf السلام عليكم وعليكم السلام لا اله الا الله ليل تكبر ليل تكبر jaamu bi yàlla ngi nii di sëñ bi sa maam Amadou Mbeg rek nee na jaamu bi yàlla ngi nii tey di wuyu ji boromam ku baax ngi nii. ku baax ngi nii tët. ku gore ngi nii. ku gore ngi nii tët. ku julliti ngi na ngi bëgg alxuraan ku bëgg alxuraan. dégg alxuraan. dégg alxuraan. jëfee ko. jëfee ko. yàlla na yàlla fay. yàlla na la yàlla fay. yàlla na la yàlla teeru ci aljanna yi gën a fay. yàlla na la bàyyi teeru. yàlla na la bàyyi gaaj teeru. yàlla na la yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teeru. sëñ Mor fa jëm yàlla na la gënal fa nga jógee. nee na yaa gore yaa baax wallahi lazi laa ilaha illa huwa sëñ gore yaa baax mi ngi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaw léegi a ñàkk ndax ñi ma ko bokk ñoo sàpp li ñu sàkk mooy ñu wax ci ànd gañ doon ànd bañ déggoon ko tuuti ba léegi taqalikoo wuñu ñoo ne nañ ci yéen indi fi rek ay ngërëm ak sant ak ñaanal ko yàlla yàlla yóbbu ko ca amiin te gannaaw li ngeen wax du waxtu la woo xam ne bii fu aw nit mbooloo nekk ñu tasaare leen waaye moor moom liñ ci bëgg a wax leen rek bañ doy ko ne ba léegi soppee ko amul waxtu woo jàkkaarloo moor ma nge ba mu la waxoon moom la ku ne xam na maa moom ñoo bokkoon ci daara ji jàng ci ma ngaan waxtu woo xoolee moor rek da nga ko gisee woon démb rek noonu nga ko gisee soppeeku kii daal ku baax ngi nii tëdd ku julli léegi nii ku am njëriñ nag ku weddi rek laaj ko mi dëkk moom ca Dakar ku am njëriñ a ngi lu am si dugub jam yalla yi wax lu ñaaw moy day defal yalla nako yalla yàlla yalla nako yalla xare yàlla waxuma sun morom yi ñaw wax waaye su ma bëgge wax li ñu waxoon yëpp kon li ngeen bëgg di ngeen ko am bu nee kër ga rek bu nee kër ga rek lan nga wax waaw alsam na ba ak kenn wala jox alsam ta non non non ah non bëggoon ba kay. mbooloo mi Alaaji Biram Njaay moo leen di nuyu di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. nee na kenn ku nekk ci mbooloo mi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay. nee nak nag tey kii tëdd Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulilah alhamdulilah nee naa ci rek ci yàlla waa Kër Massar waa Kër Massar ñaari boulangerie ñaari boulangerie Pikine Pikine ak ci dëkk bi ak ak ci dëkk bi ñu and ak kii bi muy mo ta yalla lay rek rek rek rek a tax. ànd ngeen àndoon ak mom la. nee na bi nga xam ne moom lan àndagoon ak mom ci diine l'islam ci diine l'islam tariqa Cheikh Ahmad Tidiane sharif ci faydatu ci faydatu Cheikh ibrahim Niass maulana Cheikh ibrahim Niass bay mu nampé ko fu wér nag. mu nampé ko nak fu wéré wéré wéré. kooki nampé fu wér. kooki nampé fu wéree wéree wér. kooki nampé fu ba fu soob ba fu soob yàlla. nii. nee na nii tey tey. loo xam ne kenn du ko laam laam ne kenn du wér. ku ku bëggoon tariqa Cheikh Ahmadou Tidiane mi nii tey Alaaji Ibrahima Niass Fayda ku bëggoon tarixa Baay moo ngi nii tey képp ku ànd ak moom koo xam ne rek mas ngaa ànd ak moom ci diine la lay sax ci rek la lay sax diine la lay wax ak bay ndey ak bay bopp lii la lay digal lii rek la lay moom day la nga xam ne moom lañ ànd génn ak moom julit julit xaqan mi ngi képp koo xam ne ci ànd nga ak moom. nee na képp koo xam ne rek mas ngaa ànd ak moom mii. ci diine lay wax ak yow. du la wax lenn lu dul ci diine. du la wax sama ndey. du la wax sama ndey. du la wax sama baay. du la wax sama doom. du la wax sama doom. diine la lay wax. diine la lay wax. sa ndey sa ndey. sa baay sa baay. moom lañ ànd woon moom. nee na moom rek lan taxawoon te moom lañ ànd yoon ak moom ba bis ni ki tey ba bis ni ki tey soob yàlla tey moo ñu day lii moo leen tàqale ci saa yi tàqal ñu jërëjëf lii day moo ñu tàqale ci saa yi nee day tey moo leen tàqale ci saa waaye baatin ba waaye baatin ba ma nga fam nekkoon démb alhamdulilah ma nga fam te du fu hmm. ak ñaari boulangerie ak ñaari boulangerie ak ak ak lenn ci ak lenn ci leen di ñaan ngir laay rasulullahi lam leen daa wax lam nga xam ne moom lañ ko daa wax jëfee li nan koy jëfee mu di dal mu di ak dal nañu dal lu waay bëgg ci yàlla lépp li nga xam ne rek waaye bëgg na ci yàlla ci yoon ci yàlla Muhammad bëgg ci yoon ci yàlla Muhammad bëgg ci Cheikh bëgg ko ci Cheikh bëgg ko ci Baye bëgg ko ci Baye bëgg ko ci Baye gaay ak dal nañu ànd ak dal kon nag dal lañ bëgg nee na képp koo xam ne rek mi ngi ànd ak dal insha Allah rabbi yenn yi nag daf koo jarul ne جمال في جمال فا جرو نان سنت يالا ناني سنت يالا كان واحد لا لله وانا اليه راجعون وما كان كان لا اسلام ما كان كان بركه ديري قد كان سن اوكي نيغا انا لله وانا اليه راجعون لا اله الا الله la borom maqamaatul xariir yi waxoon ci téeréem ba rek la ñuy wax alfadlu lil mutaqaddim su doon xëccoo wala leneen lu baax le daal aji jiitu ji yenu na ko sëriñ bi yenu na ko kii mënuñ koo seede ndax suñ waxé lañu wara wax suñ sagul suñ fi jégué ko leneen judd ci ta fekk nak deug rek jot ñu wax ومن أحسن قولا ممن دعا إلا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإذا ألزي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم yàlla daf ñoo wax ne yaa ayyuha allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ki nag dee na di jullit yàlla ne bu ngeen di dee rek ne leen jullit deena ne jullit asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala yàgg na rafet na sëñ bi borom bis bi mbir yaa ngi noonu sa loxo waaw kon ñun ñëpp bu waxee ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbooloo mi sëriñ bi nee ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yonent bi nee na xayrul kalaam maa qalla wa dalla ngeen ji wax mooy wax ju néew te tettale dëgg mu ne ngeen nga wax mooy wan wax ju neew te gàttale te tettale dëgg sëñ Mor mii tëdd mu ne sëñ Mor mi tëdd dama koy sant sant ak waajuram sëriñ bi ne da koy sant sant ak waajuram sant it sama waajur mu ne mu sant waajuram ndax ñooñu tëkkee mu ne ndax ñooñu takkee waaye takkee wuñ leen ci xëccoo àddina waaye takku leen ci xëccoo àddina dañ ñoo takkee ci xëccoo yonent yàlla Muhammad dañ leen a takkoo ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ak baay ak baay ak njaboot gi ak njaboot gi mu gën ci man ci raw ci mu ne mu gën ci moom te raw ci ndax kat keroog bam na bëgg naa bàyyi mu ne keroog sëñ Moor mii bam na bëgg naa bàyyi na bayam man do bëgg bay mu ne na bayam de mom dafa bëgg bay mu ne ko dem ci alaaji mor mo la koy sax mu ne daf naka dem ci alaaji mor mom mo la koy sax alaaji mor and ak mom and ak mom mu ne alaaji moor ànd ak mom and ak mom ba na demal ba naka demal kër ba ma ñëwee ci sama bay nako man do bëgg jokk ci bay mu ne keroog ba mu bayam naka mom dafa bëgg jokk ci bay mu ne demal bay abdou jangal la koy sax mu ne daf naka demal ci bay alaaji abdou jangal la koy sax kon mag ñu baax ñii nii ñu takkee njaboot gi mu ne kon mag ñu baax ñii nii ñu takkoo njaboot gi ñun njaboot gi yëpp war ñu wax alhamdulilahi mu ne ñun njaboot gi ñëpp war nañu wax alhamdulilahi takk nañ ñu ci yoon bu baax mu ne takk nañ ñu si yoon bu baax takk nañ ci yoon bu gën takk nañu si yoon bu gën takk nañ si yoon bu jëriñ takk nañu si yoon bu gëriñ alquran rek ne li misli haza <laughs> wal yaamilil amin jàng mu ne jàng xam mu xam. jàngale mu ne jàngale. lim lim xam ci faydu baay. mu ne sëñ Mor mii lu xam si faydu baay. moom la sax képp koo xam ne topp nga ko ànd moom la xam lépp koo xam ne mii topp na ko. ànd ak moom. waaye lépp lu si am. waaye lépp lu mu si am. waaye lépp lum si ne. waaye lépp lu mu si nekk. day dellu si ne ma teel sa loxo yaa ko moom. mu dellu si si sëriñ bi naka teel lii yow yaa moom. delloo si ko nag benn yoon nag. delloo si ko benn yoon. kon nag moo tax maanaam ñun ñëpp lañ bokk gërëm sëriñ si mu ne kon ñun ñëpp nañ bokk gërëm sëriñ si waaye nañ gërëm suñu waajur yi waaye nañ gërëm suñu waajur yi ndax yar nañ ñu ndax yar nañu xamal nañu xamal nañu jariñ nañ ñu jariñ nañu yal yàlla fay mu ne yal yàlla fay mu kàbbar ju léegi rek mu ne ñu kàbbar ju léegi rek ba dem kër ga lépp lu ñuy wax ñu ko lépp lu ñuy wax ñu ko kaa wax defar leen sàpp yi defar leen gannaaw defar leen sàpp الله أكبر الله أكبر